jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi ñu ngi am kontante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen fii ci wasaare lamb mbokk yi ñu ngi fii ci làmb Adrien Senghor Pape Dia production woo ñu fi teg fi bëre simple boole ay ndaanaan yi nga xamante ne ñu ngi ci lamb gis nañ fi ñu bari ku ci mel ni Pakala bu Mbuur gis nañ fi ki nga xamante ni mooy ay champion yu bari ñu ngi fi. général Malika Pape Mbaye Mbaye Tine ak ki nga xamante ne mooy caatu bawol ñëpp ñu ngi ci làmb ji sëñ Basiru borom mbég mek taar mi laa ciy àndal sama xarit sama doomu ndey borom saraax ci digg kër gi borom wasaare làmb sëñ Basiru maa ngi lay nuyu. Baye Jili maa ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci yow. di nuyu axlu làmb gépp rawatina ñi nga xam ne nii dañoo jël seen i gët ko ko waa wasaare ñoom laay nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax ni nga ko waxee noonee la fa demee tey ñu ngi adressé Senghor moo ñu fi woo di Pape Dia production ci journée nag bu ama am solo ndax xam nga bi làmb ubbeeg léegi amateur yi dañoo namm làmb rawatina lii di gala dañoo namm lutte sans frappe loolu moo tax gis nga boo wootee ci Grand Yoff rawatina ci adressé da ngay gis ne amateur yëpp dañuy wuy si donc Pape Dia gàcce nga laama comme ni nga ko waxee noonu la demee gis nañ fi ténor yi nga xam ne nii ku wax làmb wax leen ku wax lutte sans frappe wax leen waaye ku wax tey gala de il faut nga tudd leen ay champion lañ leen ñooñee nag tey ku ci nekk takk nga sa ngemb dogal yi fas jël li Pape Dia teg ci Adrien Senghor mais bàyyi ji tey dara du yomb tey dara du yomb ndax boo gisee général bu Malika mu ngi fi ki nga xamante ne mooy Mbaye Tine aussi mu ki nga xamante ni mooy pakala bu mbuur nga xam ne gëj nañ koo gis moom it mu ngi fi tey daal sëñ Basiru soo bëggee dégg dëgg mbër yu mag yëpp ñu ngi fii ci Adrien Senghor tey waaw mbër yu mag yaa ngi fi dama laa saison bi day doog a ubbi te Jax production dafa def lu am solo barki démb dafa organiser ca arène nationale ne mbër moo xam ne nii ñëw nga takk ngeem danaa la rembourser 5000 yi nga xam ne moom nga defee licence loolu tax na mbër yu bëri am ndax ouverture saison da doon bëri lu yàq ay làmb yoo xam ne renouvelé guñ seen i licence ñii problème mu xaalis ñii problème mu ñii dañoo nekk ca nawet ba pareeguñu ak yeneen i facteurs yoo xam ne moo tere mbali ñu renouveler seen i licence waaye Jax joué na ci rôle bu am solo moo tax tey boo ñëwee ci Adrien Senghor di mbër mu ne di nga fekk ñoom Pakala ngi noonu général Malika Ngok donc ay bokkal rek ñoo fi nekk Baye Djili. incha allah waaye dafa mel ni amateurs yi namoon nañ làmb ndax boo gisee làmb ji passé làmb Pape Jabi ak tey li nga xamante ni moom na làmb ji melaat fii ci Grand nga xam ne Basirou. lamb fi mu nii ku yokkul yaa wàññi waaye lamb jee ngi yokku. waaye yow lamb ku yokkul yaa wàññi loolooy li li liy dëgg bàyyi jiili waaye jiili li amateur yi namm namm lamb ji ñun ñoo leen ko gën a namm. wallaahi ñun ñi nga xam ne lii de wax rek la ñuy def. macha allah <laughs> rawatina ña leen di wax ca wet ga ak ña leen di tëggal. xam nga lamb daa bëri bagage te neex. Basiru damaa dugg rek sama xol sedd ma am lu ma yëg ci sama yaram nga xam ne daal làmb daa lay làmb gars yi dañuy tëgg bu ñu a sori sa lay dal dafa am fu muy dal ci amateur bu bokkut ak fi muy dal ci ndënd bi ci xolu amateur la galañu làmb di dal buñ ko fa dóoree foo jaar sa xol sedd buñ ko fa dóoree foo jaar nga yëngu bi ngay dugg di di njàpp boobu teyatoo ko billaahi kon noonu lañuy def mbokk yi wan leen li nga xamante ne mooy làmb ji fi am fii ci Adrien Senghor bàyyi leen ngeen seetaan ñu wan leen ambiance ak culture lépp loo xam ne xew na fii la xewee ci wasaare làmb ma ànd ceeg sama sama doomu ndeyu sëñ borom mbég meg taar mi mais sëñ Basiru mbot na ko waaye dafa mel ni booy bi forum lépp ci mbot la moom mii di booy bawal tey mu ngi fii ci la arène Senghor mooy boo ko gisee moo sol ngemu vax bi ki muy bëreel na dafa mel ni làkkat la waaw maru làkkat la gis nga seen seen seen ngem bi euh, waa kër Faalaay Balde yi ma xel dem na ci Ama Balde ma xel dem ci Ama Balde dem ci waa Tamba ndax mbëri Tamba yi ñi ci bëri noonu la ñuy bëree mais xoolal booy bawal mbëru tànk la da koy seexal tànk da mbot da koy mbot da koy mbot mais lii wóorut wóorut lii wóorut mbër mi boo ko forcé mboot mi rek am na nu muy désister bu replier balaa ngaa jógaat yaa xam te boo moytu dalay dalay buux rek ay ji la ak maa mënoon a bëree ay waay sëñ Basir looy wax lii baroo ma moom am nii oh, mbërëntaan laa woon tànkum tàmbañ bi ku ma ko jox boo ko jëlee ma mbot la 37 combats laa am ñaata victoire am <laughs> ak ak ak benn victoire benn défaite. allahu akbar. Ah, waaw man man man li ma def ci lamb cu la. palmarès bu rafet la def sëñ Basirou. borom mbégteeg taar bi. waaw noonu lay demee kon ay coono ñu dem ci combat yi. jël na ko beneen de Bambaye Bambaye bi la jël na tànk bi Bambaye oh! ko jàpp. Mbaye Tine ak Blindé. Mbaye Tine Blindé. Mbaye Tine Blindé. Mbour ak bu Malika. arbitre bi leen xool diggante Pakala bu Mbour ak général Malika. arbitre bi ngi ci Mbaye Tine Blindé. général Malika Mbaye Tine. Pakala Mbour. général Malika bokk mook Pakala Mbour la. Mbaye Tine la ak Blindé. ba tey ñu ngi ci combat bi demi-finale. sëñ Basirou daa mel Malika. jox na avertissement Mbaye Tine. diggante général Malika ak Pakala. sëñ Basiru yaa ngi ak Pakala bu Mbour. mbokk moo ngemb ngemb bu ñuul bi. général bu moo ngemboo ngemb bu weex bi. takk ay sekoor ci ndig waaw noonu la demee. diggante général Malika. kii moom diggante Mbaye Tine ba léegi. Général Malika jàppante na Pakala jàppante nañ Pakala mu ngi bañ na doole plaqué na bañ na mu ngi bëree Général Pakala Général Malika Pakala ñu ngi bëree ñu ngi bëree doole ñu ngi doole yóotu na tànk bi. Pakala koy plaqué Général bañ na Général bañ na Belende war na doon ba Mbaye ba tey Mbaye Tine na Belende Mbaye Tine dem na final mu des Pakala ñaari Pakala yi bu Mbour ak Général Malika Général Pakala bu Mbour Général Pakala bu ñu nga jàppante ne tek ñoom ñaar nag dañoo ñamante léegi ku nekk xam li sa morom di saf. ku ci nekk testé sa morom ci doole. waaw du ñu ay mbër yu ndaw nag ay ponkal lañ ci làmb ji ay mbërantaan lañ ne nii général peese na pakala pakala saf sap diis gann général pakala peese ko général saf sap diis gann ah fi ne nii nag round d'observation bi jàll na ku nekk da ngay déglu sa morom wala ku nekk da xool. fu nooy rek nga jaar fa waaye dootoo ñemeeti yenn yi ndax demi-finale du ay fo lu waay lu mag doon def bu dee bu dekkee ba ko demi-finale bi du ay caaxaan du ay fo li indi demi-finale sëñ Basiru doo ñëw ba finale di ko sorxo sorxo déedéet lamb doxewul noonu fi mu ne tuutee leen dese rek ku ci nekk tuuti moo la dese nga àgg finale mu ngi yootu loxo bi waaye ba général bu Malika est-ce que loxom ci kaw baax na ci moom wàccee na ko wàccee na ñu ngi jàppante ku nekk di déglu sa moroom diggante général Malika ak Pakala bu Mbour Pakala takk na ko Pakala takk na ko ñaari loxo yi baaxul général koy jàpp général koy forcer ñu ngi jàppante. Pakala Général Malika. Pakala fii ku fi war ngaa mën a jël final bi mérito nga ko. sonn nañ ci demi final bi trop. waaw comme final. ndeysaan Général Malika lu tax nanguwul def erreur bëggul def benn erreur mooy final bi nga xamante ni moom la perte. ñoom ñaar Général Malika Pakala bu Mbour ñu ngi jaayante doole ñoom ñaar ku ci nekk jàpp na sa morom di déglu. ku ci nekk bëgg na sa morom def erreur rek nga exploité boobu mu def moom Pakala bu Mbour arbitre bi soufflé na arbitre soufflé Pakala éliminé na ko par avertissement Pakala éliminé na ko Pakala éliminé Général Malikop génne na par point Pakala éliminé na ko lay lay lala xalion Mbaye Tine mbër bu tollee fii bëre ba yegg final looy xalaat ci daan. lu dul ko ñibbi rek daan ko ñibbi rek. xam nga ki ngay daje. ah xam nga ki ngay xam naa ko champion la mais gënu maa doon champion. gënu laa doon champion ku fi yegg champion. lamb daal ku yàlla jàppale rek la waaw. Pakala mbër bu tollee fii ci final looy santi waa ah lamb la rek comme yeneen combat yi rek ñoo bëre si yoon rek lu ma yàlla may ma jël amatul ma si pour def naa si lu nekk. lam lam ni sama am jafe-jafe rek mu ñëwaat garaawul waaye dañ laa gëjoon gis foo nekk man maa ngi si bi di liggéey maa ngi si compétir si mbapat daaw ba léegi maa ngi si waaw ndax toogaay jigur mbër quoi bay entraîné ma dee sowaat da nga war di compétir kon bonne chance jërëjëf sëñ Bassirou ñu ngi présenté ñaari mbër yi technique bi ñu jox ko ko merci bu géejawaay arbitre sifflé na Mbaye Tine am na lu mu sànni Pakala bu ak Mbaye Tine final Adrien ñu ngi fii Adrien Senghor arbitre ñu ngi damante baaraam tegante nañu bopp ak Pakala Mbaye Pakala Pakala ngemb bu ñuul Mbaye Tine lu weex lamb ju neex macha lamb ju neex macha lamb ju xumb macha lamb ju bëri public ñu ngi jàppante ñu ngi damante Pakala daa bëgg a jàpp Mbaye Tine Mbaye Tine daw na jël ko Pakala plaqué na ko daan na ko Pakala daan na ko Pakala daan na ko daan na Mbaye Tine mbokk daan na Mbaye Mbaye Tine dina ba démérité Mbaye Tine def na lu waroon def lépp na Mbaye Tine Pakala Pakala Pakala lu mooy lan nga wax waaw sant yàlla rek ci seen bi sant ñaari waajur di sant amateur lamb la rek tey da ngay daan suba nga rek. non c'est vrai yàlla ndax ñoom ko ci sama grand la. sama grand ko ci. jaayef waaw. mu toll nga jël lamb ji waaw sant yàlla rek. di suma sumay waajur di sant sumay supporter di sant amateur lamb yi am amul lu may prouvé si lamb. est-ce que ñëw jàppoon nga ne yaay jël tournoi waaw man nag lamb bu njëkk lu ma koy yombul lamb bu njëkk lu ma koy yombul quoi waaw. foo jëm ci lamb bëre door gën nañ laa gis trop dóor ñoom Malick Dia ñoo ngi fi ñoom Mees ñoom Amaneex ñoom Garga Mbossé ñoom Mees ñoo ngi fi ñoom ñoo tax jël ma yeneen combat yi dañ ma jël. jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen li nga xamante ni moo amoon fii ci Adrien Senghor mu dox ci diggante. pakala bu mbuur ak mbaytin mbaytin pakala mu jéene koo daan par final ndam li pakala tey moo ko jël mais làmb noonu la jeunesse bi ñi nga xamante ne day dund làmb tey mbaytin ak pakala li ñu def yey na yeneen mbër yi nga xamante ne dañoo nekk ci bëre dóor bi te ñoo am combat ñuy ñëw fii lu ci mel ne Adrien Senghor wala ñuy dem gaal gi wala fépp fu làmb simple am ñu fay dem ndax compétition ñàkk compétir rek moo metti waaye maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye du ma sant te fàtte ki nga xamante ne mooy sama doomu nday sama xarit sëñ Basiru borom mbég meeg taar mi nga xamante ne macha allah saraax ci digg kër gi jar na lu ne bu ko waxee revue de presse am yemut ak revue de presse bu yàlla bind mais sama waa ji maa ngi koy jaajëfal di kontaan di am kontaan ak mbégte jërë ngeen jëf ak wasaare lamb